ñoo koy faral di ubbi

Thank you. booy booy loo la waaw way booy loo moo gagné partition médicale kon permis yom daan nañ droite ngemb lu noir ànd ak rouge numéro 2 ngemb bu bleu takk ay sengoor yu ndeysaan sànnente nañu daw na yooru jëli waaye Kaana ba eh! waaye Kaana na Sa Kajoor jëli bu xool Sa xool saa kajoor buuf nu da koo delloo te ku ne dellul fa nga jóge woon Moussa tànn ku jëli bari Bamba maa lay bëgg jooy maa lay saa di fay baax baax di wax ne sa saison bi ubbi na tey Bamba ñu gis ko ci délégation soxna na fi Fallou Fall lu seen diggante yéen naar waaw soxna si de maak moom du tey euh, day sama jigéen ju baax euh, di kilifa ci man lu ma xewle mu jóg si jàpp ci def moyen mi yëpp donc nii rek la mën a demee aussi quoi bu xewle tam mënu ma lu mu xat-xat-xat damay bàyyi li may def lépp ñëw si bésam daal parce que nit aussi noonu rek waaw. Bamba am na ren journée. waaw am naa benn journée maa ngi jëm incha allah le 28 décembre euh, si diggante góor gi étudiant ak Boy Balde waaw le 28 décembre. le 28 décembre le décembre incha allah. stade Iba Mar Diop stade Iba Mar Diop waaw. beneen. non ñu ngi kii ñu ngi waajal xam naa ne ñu xaar euh, ñu jël tat rek def euh, lutte avec frappe euh, lutte lutte simple du moins defee ko stade bu mag incha allah. Hmm. kontaan ci yow Bamba. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. ak Pape Dame Mbaye écrit Pape Dame Mbaye. internet. waaye internet mbaam nga réseau. arbitre Macha. loolu da eh loolu dal na de waaye loolu dal na kat. Macha ay arbitre wala boog Sitor ay arbitre wax na dëgg waay. dóor inter eh waaye doo fayu. waaw. laa ilaha illallah daan na ko waaw waaw eh eh eh waaye yow yow looy def nii boo ko daanee doo ko bàyyi waaw baax na léegi. eh ñu ngay xeex waaye yéen ñagas ñagas à gauche ak vita ñagas jëlee na ko ñagas da koo bëgg a jaay doole vita bañ na de xeex vita koy dóor. gauche capitaine à droite Yaxya église ba Yaxya capitaine dóor na ko Yaxya ngay arrière capitaine koy dóor waaw capitaine lu nar daw na jël ko waaye yéen capitaine bi lu mu naral Yaxya eh capitaine Yaxya ba diisu capitaine ak Yaxya laa ilaaha illallah dawal na ko dina ko daan wër na ko ndox ko daa bëgg a génn na ko eh waaye capitaine waaye xoolal ma capitaine ay waay capitaine ay waay capitaine waaye xool yax ya jóg xoolal yax ya ay yax ya ay waay yax ya jógal daan nañu mërëm su nga jug borom mën a jot nga daan ndaysaan petit baabooy a ngi noonu petit baabooy a ngongu so bés bi yaa ko moom waaw àndal ak dar rek voilà mu mel ni kii maanaam sànq laaj naa ko mu ne baayam nga kii sama doom la kii moo gën si man moo gën si sama rak moo gën samay doom moo gën si sama kër kii borom baax la barki Muhammad Rasulullah kii xol bu mu yor moom rek ko yor billahi lazi la ilaha illallah barki sëñ Modou Habib Mbacké kii bu yàlla fayee xolam waxuma la lamb mais lu raw lamb da koy am barke sëñ Tuubaa mais nuróowaay bi yéen ñaar waaw loolu yàlla moo ko def xam nga nit ki boo ko bëggee rek yàlla moo ko def mais kii billaahi wallaahi musuma gis ku mel xol bu mel nii billaahi wallaahi kon daal Baboy pare na ngir lu man ngir mu nekk champion kii mënu ma la wax sax lu xew kii li ci ne na ci moom waaw Baboye Ngongu yaa ngi xool adversaire di ko niir waaw da ngay xool lamb la ci sant yàlla rek waaw te naka saison la ilaha illallah ak petit baaboy xool butéel yi laa ilaha illallah warante bi ci géew bi bee ma ngi ci butéel yi sawru faala ko andi baaboy tiitalu leen baaboy tiitalu leen mani baaboy tiitalu leen non ñun kii xale la yow te Babacar kii du am na mbër yoo xam ne maa ne ñoom du ci Babacar kii booy bi xale bi maa ne moom du ci maa ngi à l'aise wallaay la si du maa ne moom bi barki alxuraan loolu yàlla def leneen la mu def mais du maa ne moom bi géew baa ngongu sukku na de ndaysaan sengoor ga moom baabooy petit baabooy ak i sengooram këleeg bu teelam waaye Moussa Fall lii neex na petit baabooy sukku na sengoor ngay takk kee ngay sotte ko xool Petit Baboy Petit Baboy c'est bon Fall kay dem naa fee fekk fa Baboy mu mel ni moo ndi Petit Baboy mu mel ni BMW xale bi sa keppaar la jóge waaw ah, ñun xam ñëpp waa Réfane lañ ñun waa Réfane lañ ñëpp bool bool yëpp Réfane lañ dëkk ñii bëre gis naa Baboy niir sàng petit BMW de waaw Baboy moom mën na andi mbërëm ma andi sama mbër waaye nag après ku nekk li nga liggéey day feeñ après. ku dàq ñaar ñi nga yaakaar. Talla Sall moo dàq bëre waaw. kon ci kanam. waaw ci kanam waaw. Agos Matiang la waaway booy loo moo gañe par décision médicale daan nañ ko combat sant yàlla nga ubbi saison bi daan sant yàlla rek lépp bare jon la bilaay noo ko daane kii dama koo jàpp ma xam ne kii ma ko doole bi ma ko fii bu njëkk bi dafa daw dafa feq ba son mënu rëj père bare jon damaa teg lu miti dama daan tëj sama kër mu woo ma ne fekk ma ci saal bi billaahi walaay bàyyi njabootam ndax man lii rek laa ko mënoon a fayee nga xëj ko mu ñëw nga caxabal ma dóor ko caxabal mu toog foo jëm lu ba jon wax rek waa ndeysaan Fall tey la dimanche 24 novembre sëñ Modou Niang ubbi sason bi comme ni mu ko tàmm defee BMW petit babo yi jàppante bi nag bi mu amee xamoon naa ni BM jàppante bi moo ko gën a arrangé boo xoolee loolu la utilisé da koo téye mu dëgër mu xëcc ko mu ñëw mu dugal ko tànk gunge ko ca xabal sëñ Modou Niang ubbi tey la woon dimanche 24 novembre di leen jox dig daje rek le premier décembre Mama Lamine Jokkel Leewtoo TV